acca mu ngi noonu arbitre yaa ngay wax li làmb bañ ak li làmb nangu ñoom arbitre ya nee leen mat ak xat ak xot dara bokkul ci làmb ji ndeysaan arbitre yaa ngi leen di na leen siflee leen di boole siflee leen di tàqale laaj na ay consultant am ñu ne ko pare nañu arbitre génn na ci seen diggante ñoom ñaar sifle na ci diggante Tapha Leer numéro 2 ak Bébé Reug Reug Bébé Reug Reug ndeysaan moo leen wan kanam Tapha Leer moo leen wan ginnaaw Tapha Leer Bébé Reug Reug Tapha Leer Bébé Reug Reug ñaari xale yaa ngay lewtoo ñaari xale yaa ngay lewtoo ndeysaan Bébé Reug Reug cokkaas na Tapha Leer delluwaat na ginnaaw benn pas Bébé Reug Reug Tapha Leer Bébé Reug Reug Tapha Leer ndeysaan Tapha Leer de ni nga ma ngay ci kawam Tapha Leer mu ngay dox ci kawam ay waay lu muy dox ci kawam nee leen ñoo ngay waaj a dem ca saako ya te saako ya fekkul kenn dafa leer mopp na nee naa leen buntu door buntu la cokkaas buntu la bébé rek rek ngay laxas loxo am na lu mu cay laxas dafa leer mobati na waaye doorul bébé rek rek door na bébé rek rek door na dafa leer bébé rek rek dafa leer bébé rek leer cokkaasaat na Bébé Reug ngay dox ci kawam Tapha Leer a ngay dem Tapha Leer Bébé Reug jàppante nañu Bébé Reug Tapha Leer Bébé Reug Tapha Leer Bébé Reug Leer ñoom ñaar ñu gi ci biir Bébé Reug Tapha Leer nee naa wëlbatiku na eh mu ñëwee dem naa dem sens inverse Tapha Leer jàppul fenn waaye Bébé Reug jàpp na. ndax day liggéey fàq na ko demul fàq na ko fàq na ko moo ngi koy jéem a dóor mboot de arbitre nee dara amul ku nekk sa benn tànk wa ngi ci biti ndeysaan kee jógoon na taxaw entraîneur ba cey làmb kenn xamul na la bébé rëg rëg tafa leer bébé rëg rëg tafa ñaar arbitre a ngi leen bébé rek rek am na ngeen mu ngi koy jéem a fàq waaye fàq ba dem bébé rek rek dafa leer ndeysaan ku nekk ñu ngay jàppante lii mooy wure ñoom ñaara ngay wure ñoom ñaara ngay wure bébé Reug Reug Tapha Leer eh, Bébé Reug Reug wayale waat na ko Bébé Reug Reug Bébé Reug Reug Tapha Leer Tapha Leer tegu na ci suuf hee eh, loolu daana dara amul dara amul ñaari xale yu bëri nañ lii mooy mbapat ñoo ngay mbapat ci diggante Bébé Reug ak Tapha Leer arbit arbitre ngay wax ak ñoom arbitre ba wax na ak ñoom nee na ngeen daje dara amul avertissement demul avertissement dikkul ñaari xale yaa ngay bëre Tapha Leer Bébé Reug Reug arbitre nee na leen bëre leen bu leen ñu fi yàggal bëre leen dañoo bëgg a ñibbi Tapha Leer bébé Reug Reug ndeysaan bébé Reug Reug cokkaas na Tapha Leer arrière na benn pas waaye Tapha Leer mu ngay jéem a dox ci kaw bébé Reug Reug arbitre baa ngay wax ak ñoom nee na leen bëre leen ñaari xale dañoo ñamante nag dalante nañu mu foog li am bébé Reug Reug Tapha Leer arbitre wax na ak ñoom ñoo ngay nekk di léewtoo ñoom ñaara ngay léewtoo bébé rek rek Tapha Leer jàppante waat nañ jàppante waat mu ngay yóotu la nga yemb la Leer bañ na Tapha Leer a ngay rasu Tapha Leer a ngay rasu Tapha Leer a ngay rasu bébé rek rek Tapha Leer Tapha Leer a ngay xool di dóor jéem a dóor bébé rek rek Tapha Leer bébé rek rek a ngay dóor fayu door fayu <laughs> ndeysaan dafa leer nee na ku ma door yet ma fayu moo koy mboot mboot jolol jolol la jolol looloy jolol jolol ba jolol ba hee dafa leer daanu dafa leer daanu na bébé rek rek daan na dafa leer ee waay ndeysaan xoolal leen ma turbine ba ndeysaan lambu jaa ngi noonu xale ya ma li nga xam ne bébé rek rek indi na ko ndeysaan xale bi duy na stade ba ndeysaan xoolal leen ma dafa leer mu ca suuf nee naa la làmb powum góor la wa xoolal ba entraîneur ba nee na day rendi lii mu def nii daf ma fàttaliku Yaxya Joob yi gin xoolal bébé rek rek moo koy bajantiku lii mooy jay jay jay jay eey waay samba oh waay neex <laughs>